jërë ngeen jëf mbokki site internet yi ba Sénégal actu dal leen ak jàmm seen actu du jour la ñuy jësuwaat dañ koy dooxee nag mbirum Ousmane Sonko nag lan koy dooxee ak kàddu yi nga xam si nag fan yi yëpp nag moo ngi jub ñu koy tekk ci kaw dërëbu Ousmane Sonko moom mii di El Malick Ndiaye nag nekk charte de communication bu parti pas parti bi nga xamante parti Pastef ñu gars yi di ko wax naan ex moom nag moo ñuy xamle di ci indi repos am di wax na nag ñoom ñi nga xam seen nag ñooy tudd Ousmane Sonko di ko wax wàllum salafisme ak wàllum li nga xam ne terrorisme ñoom ñëpp daal loolu buñ koy wax rek ñun arrangé nañu ndax bëgg nañ ko te sénégalais yi nag bëgg nañ Ousmane Sonko te loolu ñu ngi wax daal dañuy gën a rek yokk rek li nga xam si nag moom moo di doole ndax Ousmane Sonko Sénégal dugal nag ci xol ba pare rek te loolu mënuñu ko si jëlee. li nga xam te moo di Ousmane Sonko ñëpp di taxaw di wax rek naan Ousmane Sonko daal ab salafiste la ab terroriste la ba pare eh, day nekk rek di sacrifier li nga xam moo di jeunesse bi loolu dang ñu koy wax di ko teg ci kaw derub ki nga xam moo di président Ousmane Sonko. ñun daal loolu lépp bëgg na ndax loolu dañuy gën a yokk doole moom mii di El Malick Ndiaye di xamle loolu wax na rek li nga xam moo di parti bi nga xam moo di parti Pastef nekk na parti boo xam nekkul parti fawukaay bokkut ak yeneen parti ndax parti boo xam parti projet la projet boobu nag Ousmane Sonko jiite ko ba tey nag moo koy woy di jiite te moom mii di Ousmane Sonko mooy cinquième président ginnaaw nag euh, moom Ousmane Sonko ba mu jiitalee ki di xam moo di Bassirou Diomaye euh, ba tax ne ki nga xam moom moo di ci parrainage yi seen objectif bi nga xamante ne si nag moom lan doon def daal matal nañ ko ndax sénégalais yi wuy si na leen ci daal ba mu fees dell ndax xam na ne ñoom ku nekk rek yaa ngi fësal ci parrainage na am na ay millions de parrainage mais ñoom daal fësalul dara ndax xam na ne li nu am ci parrainage kenn amu ko ci ndax ju ci mel ne rek waa APR ñooy wax ay 3 millions de parrainage 7 million loolu nag mu nekk nag loo xam si nag doy na wax trop moom it di elma Malick Ndiaye di yëkkatiwaat ay kàddu ji ko jëmale nag ci président Ousmane Sonko wax na moom nag mooy cinquième président ginnaaw nag ay tuuma yu bare bari ginnaaw ki nga xam moo di député bii di Matar Diop yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Ousmane Sonko wax na nag daal moom mi xamu di Ousmane Sonko daal li nga xam si ne moom moo di ay euh, garde corps yi nga xam moo ngi koy jël di ko former nag nekkul garde góor garde corps yoo si ne nag nekk na loo xam lu valable la di investir li nga xam te moom moo di xale yi di nax sénégalais yi pour rek di yëngal Sénégal moom mii di xamu di Mata jopp wax jooju nga xam wax na ko nag rëccu ci dara te bu doon tey da koy waxaat wax na nag am na ci ay preuve wax day investir ci fi nga xam moo di wàllum terroriste moom mi nga xam si nag moom moo di Mata Diop député boobu rek moom moo ko xamle. di xamal Ousmane euh, Sonko daal yow mënoo bokkoo ci euh, élection présidentielle yi 2024 euh, ginnaaw ñoom Madiambal Diagne ak Cheikh Yérim Seck ñoom à chaque instant rek ñoo ngi tokko ci télé yi di wax ni Ousmane Sonko mënta bokk rek ci élection présidentielle yi 2024 ba tax na nag ñoom ginnaaw ba nu tasee parti bi nga xam ne parti Pastef ñoom loolu rek la foog ne Ousmane Sonko du bokk mais daal jeunesse bi gëm nañ seen bopp. jàpp xam ne ne daal Ousmane Sonko rek muy neex muy naqari dafay bokk ci élection présidentielle yi 2024 ci loolu dañuy jàll ci Ousmane Sonko ba tey ak li nga xam moo di ay milliards yu bare bari lan wax ne rek da ko envoyé ki xam moo di président Macky Sall pour rek euh, sécurité am loolu rek daal mu nekk nag ay tuuma yoo xam se nag ñoo ngi koy teg ci kawam Pape Alé Niang dellusiwaat ci wax ne rek bu fekkee. fekkee ne président Macky Sall daal Ousmane Sonko envoyé na ko ay milliards yu bari lool na génn rek daat koy ferndeel génne kayit biir rek bu ko defee ñu mën a euh, teg daan ki nga xam di président Ousmane Sonko mais daal loolu ñuy wax yëpp daal dara amu ci ndax ay taskatu xibaar yoo xam si ne nag tekkiwun dara ci réew mi euh, mooy Serigne Seck ak ma Madiambal Diagne ñoom fu nu nekk rek ñoo ngi ci télé yi di wax lu leen neex di sosal Ousmane Sonko te li ni koy soxal nag dara du ci dëgg ndax force occulte yi ni wax na Ousmane Sonko da koy reg da koy ci fi nga xam mooy réewam Sénégal loolu lépp rek. ci dëgg lenn rek moom moo ko waral mu yàq deru ki nga xam si nag moom moo di président Ousmane Sonko loolu rek la ñu bëgg mais Ousmane Sonko daal deram bi xas na ba set ba pare kenn mënatu ci dara ndax sénégalais yi dugal nañ ko seen xol ba pare xanaa kan da ngay dem sénégalais bu nekk rek nga dagg xolam génnee ko fa mais bu dul loolu rek ay kayit wala bind wala dissoudre ab loolu mëntatee rek Ousmane Sonko bokk ci élection présidentielle yi 2024 ci noonu waxi Pape Alé ba tey ginnaaw ñi nga xam si nag moo di tribunal bu Dakar projet bi nga xam jàpp na ko nag ci diggante ak achat subsidiaire bu l'État ñoom nak ginnaaw ba nu defoon recours fële xam moo di ca cour suprême ba cour suprême xam le ne daal da ngeen ni Ousmane Sonko dañ koy àtte waa ci tribunal bu Dakar ñoom at tribunal bu Dakar nag ñoom ci li nga xam si nag moo di le 12. le 12 décembre bi lana xamle ne la ni ate ki nga xam moo di président Ousmane Sonko am radiation bi ni kay euh, def daal dafay définitif wala ci radiation boobu noonu sax la ni déet waat lu tax ñu def ko ko boobu ba tey euh, tax Ousmane euh, Sonko daal radiation boobu noonu ñu xamle ne moom mi nga xam moo di Ousmane Sonko du bokk ci élection yi ba tax na mandataire bi nga xamante ne nag moom moo di kii ñii di monsieur Ayib Daffé demoon na fële nga xam si moom CDC pour jëli euh, li nga xam si ne nag yóbbu caution ban jox ko ab quittance quittance boobu nag moom Ayib dafa ban ko ko joxee ba pare rek euh, ci la génnee mim réewum Sénégal boobu tey rek ñoo ngi wax naan nañ ko jox euh, li nga xamante ne si ne nag moom moo di lii nii di xaali quittance ndax eh, ñi nga xamoo di nguur gi ñoo ngi bëggaat pour Ousmane Sonko rek di jot ndax munta a bokk ci. élection présidentielle ndax conseil constitutionnel rek ñoo mën a xam kuy bokk am ku dul bokk dàmboo ci moom tamit muy xamle ba tey moom rek fi nga xamante ne moo di askan bu Sénégal. xam na ne benn euh, opposant bu mag rek moom moo fi nekk muy Ousmane Sonko euh, te sénégalais yi rek moom la bëgg euh, ëpp ki nga xam si moo di candidat bi ñu bëgg a forcer boo xam si nag kenn xamu ko fu mu dem rek moom mooy présenté boppam muy Amadou Ba moom tax di tooñaale gars yi wax na leen nag bu kenn comparé ak Amadou Ba moom mii di Dame ci na xam ne moom moo gën a ëpp valeur ki xam moo di Amadou Ba ginnaaw dem na fa li nga xam si ne moom moo di ca Gambie bi mu fa demee nag nin ko teeroo textu bu mag a mag a nag lan ko def moom mi nga xam moom moo di damboo ci ginnaaw nag moom. ginnaaw mboom ne day décidé wër li nga xamante si nag moom moo di ay dëkk dem boobu nga fa dem nag teextu nañ ko teextu normal kon nag moom mii di dàmboo ci di xamle ne ki nga xamante si nag moom moo di kii nii di Amadou Ba daal mënut a gagné élection présidentielle 2024 même ñiy wax sax naan moom mii dina mënut a gagné li nga xam moo di du dem deuxième tour yow ku mënut a gagné premier tour di nga ku mënut a deuxième tour nooy demee ay. premier euh, tour ba tax ne kon moom mii di dàmboo moo jékkiri yooyu wax na Ousmane Sonko daal mooy cinquième président te ñun ñii ñëpp rek moom moo ñu mën bépp kandidaa bu nekk Sénégal rek Ousmane sunk kum ci joxuñu wala ko àndal ak moom doo mën a dem fenn ndax xam ngeen bu baax a baax ne Ousmane sunk moo fi nekk opposant boo xamante ne sii nag moom moo fi doxal yoon ba tax ne mi di daam moo ci di xamle ne ñi candidat yi nga xam si ne nag ñoo nekkee ci fi nga xamante si nag moo di faraka état bi xam na leen bu baax a baax a pax te ñoo ngi amal seen liggéey te xam na ne euh, bis bu nu àggee rek ci fi nga xamante si ne nag moom moo di ca sampum ndënd ma dinañ xam dëgg gi fan lay féete ndax xam ngeen bu baax a baax na Ousmane Sonko moom day doon candidat par force ndax deful dara loo xam si ne nag mën na kaa doon mu doon candidat élection présidentielle yi war am atum 2000 dina di jaajëfal bu baax a baax yéen ñi safoo di seetaan ba Sénégal Actu di leen wuy di abonné di liker vidéo yi di j'aime di partager dina leen dellusiwaatal bu baax a baax ci seen actu du jours bu gën a yaatoo yaatu ak ki nga xam moom moo di Pape Alé Niang wax ji nga xam te nag live bi mu doon def euh, démb euh, dinañ leen ci dellusiwaatal bu guddee guddee guddi pour rek ñu indil leen ci ay leeral wax ji nga xam te nag wax na ko ba pare leerul ci bopp nit ñi di leen ko indilaat bu baax a baax moom di euh, ki nga moo di Pape leen di jaajëfal ngeen wéy di abonné di liker vidéo yi di sem de partager jaa ngeen ba beneen yoon